ajal c'est bon mbokk gis noonu moom mooy euh, le maire de Dakar Barthélémy Dias moom mooy door aksi noonu ay 15 heures la aksi fii nga xam ne moom mooy euh, ci euh, centre de vote am mi ngi noonu yéen ngi koy gis habillé en blanc mi ngi noonu sol ay lunettes yu noir am comme d'habitude rek ni mu koy defee ah il fait son show mi ngi noonu di dugg mi ngi noonu di dugg. pardon pardon pardon defal na damay bañ gaañu kañ waaye mi ngi noonu Barthélémy euh, moom ngeen di gis noonu mi ngi dem euh, ci bureau de vote mi nga xamante ni fa la war a yéen a ngi seen noonu ànd ay ay militants yi nga xamante. Mmh. mais grand doo leen ñu may ñu dugg ah s'il vous plaît baal mi ah. grand ko may ko rek ko waaye. mais grand grand doo leen wax ñu. non dama ne doo leen ñu wax ñu may ñu ñu jàll s'il vous plaît laa la wax. Grave mën naa xaar biir ndax bu boolekee ci biir bu yàggee ci biir ñiy woote nag ma ni bu yàggee ci biir ñiy woote nag. ci biti def déclaration. non o biti lay def moom ñu ngi ci biti lay def. dañuy def déclaration ci biti du ko

nañ ko ah xamoon nañ ne du wax léegi dem na ci otoom dem na ci otoom. Hmm? dem na ci otoom jël jël jël dem na ci otoom gis nga accomplir na devoir am ba pare lii xamoon nañ ne du wax léegi Barthélémy Dias mi ngi noonu dugg na ci otoom ah voté na ba pare mi ngi dem yoonam dem na yoonam yàggu fi yàqu fi moom le maire de Dakar avec ses militants. ah ñëw na def na showam show boo xamante ni amul benn déclaration gis ngeen ko Barthélémy Dias ñëw na dugg na biir bureau de vote numéro un école euh, Mass Massayer ñaan un dugg na ci biir voté na dem na yoonam comme d'habitude ah.